يا نبي سلام عليك تيفا بوان تيفي دي بيديو بلين دي جنن تي قدرتو التيجانية يا نبي السلام عليك تيفا بوان تيليفزيون لا لوميير دو التيجانية مبوك جوليتي مبوك طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تي واتايو

ñu ay nit yu nga xamante ne seen yitte yëpp mooy ndamu lislaam ndamu tarixa bi ndamu xadara bi duñu def lu dul bàyyeex suñu pap El Hadji Maodo Fall mu dugg ci introduction bi Pa Mor bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi yëpp ci Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkel ci xew xew mbégte yi di leen massaw it ci xew-xewi safaan yi comme ni ngeen ko déggee léegi ci seen mbokk di sunu mbokk Seyd Mouhamadoul Mansour Mbaye mu wax leen li nga xam ne ci la dëgg dëgmal jëm ca ñu war di ko bàyyi xel ba bu ñëwee jàmm nu mane ko ni ko boroom bëgge woon muy gàmmu ndar gàmmu ndar lañ koy tudde ndax ndar lañ koy defee waaye ki ko moom te santaane ko fa mooy Cheikh Sidi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu ñu xam ni itam gàmmu ndar ci ay histoire la bokk kenn mënul tudd histoire Serigne Babacar Sy bu mu jeex te tudduloo gàmmu ndar ndax bi mu koy sos booba mu ngi tiwaawoon di def li nga xam ne moom la war a def lépp digganteem ak boroomam digganteem ak yonent bi digganteem ak Seydina Cheikh Ahmad Tidiane digganteem ak Seydil Hadji malik waaye digganteem ak adduna bi yëpp tabaarakallaahu ba bés ñëw nag mu waxtaan ak ñëpp ni leen man de dafa am lu ma ndamm te bëgg ci waxtaan ak yéen moo di dama juddoo ndar te nekkatuma fa yàgg naa fa jóge it ci ndigalu Seydil Hadji malik ndax ba mu ma soxlaa la ma jëlee ndar andi ma fii bay dem bàyyi ma ak li nga xam ne moom la ma wax ni ña ko ko joxoon man lañ ci woolu ba dénk ma ko loolu tax na mënatuma dëkki ndar waaye nag amel naa leen njukkal moo di li xew fii ci Tiwaawoon te mu sosal ko fi yonent bi amel naa ci ndar njukkal ma bëgg ko faa sos nag pour ñu xam ne ndar laa dëkk tey ndara ma jur te toxuwuma ndar wata ma bëgg fa sos loo xam ne dafay dañu koy dendaleeg li Maodo sosaloon yonent bi fii te bàyyi maag moom mënuma ko fi bàyyi dem fenn waaye nag kon ma delloo ko njukkal ci sosal ko ko ca ndar bu waxtu jotee ñu demal ma ca ren jii nag laa ko bëgg a tàmbali ma bëgg nag ngeen xam ni bis boobu mooy sama fatxu makka maa ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne yàlla dogal na maak ñoom noo bokk yonent bi bokk ak moom ñoom pas-pas ku ci am jot rek nga dimbali ma eggal ma ca bés boobale yëkkati ko itam teg ko ci loxo daayitul kiram ni mu yëkkatee woon ziara général teg ko ci seen loxo ñu di ko taxaw it dem ndar yombul ndax booba pour nga dem ndar saxaar fa fay yóbbu te saxaar ndakaaru lay jóge dem ndar ñu ni nag kon teg nañu ko ci loxol daayitul kiraam képp koo xam ne da nga war a dem ndar ca gàmmu ga jokkool jokkool ak daayitul kiraam la tàmbulee gaaru Dakar ba ba ngay dem cëg raw ga nga xamni fa ngay joge do a dem dar, gar bo fi meuna dem fekk fa ño xamni wuyu nañu oote Serigne Babacar Sy bobu tok di xaar saxaar go bu ñewé ñu and ak ñom dem dar, fekk fa it ka nga xamni moko fa tegaloon bopom muy alaji tidian al ke alaji Major cisse alaji Major cisse mo représenté won Serigne Babacar Sy ci ndar nekkon nak ku am solo koo xam ne lu ko sëriñ Babacar Sy doon doyee ca Ndar matoon na ko ci wàllu xam-xam wàllu wilaaya wàllu pas-pas wàllu taalibi ci kanamu sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu man gan lool nag itam ñi daan jóge fii di daatul kiram mag ñi ci àndoon ñoom góor gi Sore juuf góor gi Abdou Alhaji Abdourahmane Diop dégg nga ñoom it alaji Abdou Koña ba ci alaji Malick ndooy mii fi mujj a jógee nga xam ne moom mu jëlee nekk président daatul kiram mag ñoo ñu ñëpp ñoo daan àndandoo di fekk si mag ya nekk ci Tëngéej te nekkal ko fa muy alaji Tafsir Samb ak alaji Santi Seen ak ñañu fa bokkal nekk ñu ànd nag ñëw Thiès fekk fa ñoom alaji Siise joge fa dem Tiwaawoon fekk fa waa Tiwaawoon yëpp ñu di leen xaar bu ñu fa jógee jaar fu ne la ñuy jaar lu fa nekk rek ñu ramassé ko ci saxaar gi yóbbu Ndar bu ñu demee it maajoor mooma nekkoon ku mat ndaw nekkoon ku mat représentant manoon gan lool booba réew mi ñu ngi ci loxoy tubaab yi booba it assemblée nationale ndar la nekkoon alaji maajoor daf daan abbu chambre yëpp chambre yi nga xam ne mooy chambre député yi nekk ci assemblée bi yëpp ñu abal ko ko ci bés boobu mu dalal ci ganam yu tedd yi fu représentant sëñ Babacar si nekk wala président daayira wala wala muqaddam bu mag am nga fa néeg am fa toilette yaag ñi ngay àndal ba gàmm gi tas gàmm gi booba ñaari fan la daan doon dañ daan fanaan ba bët set ci dimanche ji ñu delluwaat ca dal yee bu ñu jullee tisbaar dellusiwaat ci tànt bi ba julli timis gàmm gi door a tas ñu door a préparé nag dem gaar ba jël saxaar daan ëgsi fii Ndakaaru 6 heures du matin kon ñaari fan yooyu lañ daan def gàmmu Ndar keroog ba ca mag ñi jëkkee dem ba ñu ñëwee góor gi euh, euh, góor gu ñuy wax Maïs Ndiaga Diop moo ñëw Serigne Babacar ni ko ah góor gi la nga nu santoon day def nañu ko njàpp mi nu jëlee woon fii Tiwaawan ndey moom la nu delloo siwaat fii Serigne Babacar dafa muuñ ba jël kaala gi taf ci gémmiñ gi ndax kontaan loola nag moo fi nekk di màgg ba léegi nga xam ni mbir euh, léegi taxaw sampub nitu yàlla bés bu yàlla sàkk muy gën di dëgër ku ne xam na ne léegi ñii dem ndar ca gàmmu ga saxaar mënatu leen a yóbbu faf saxaar amatul saxaar amatul waaye même bu saxaar amoon téeméeri saxaar mënatu leen a yóbbu ndax sëñ Babacar Si moo fa woote woon 54 54 googu dafa nekk bokk ci histoire sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu ndax croix leçon d'honneur bi ñu ko tappaloon 1954 le 14 juillet 1954 le gouverneur général joxe woon ndigal pour ñu takk tappal ko garab boobu kon garab boobu daje woon nag bis bi at mi nga xam ne ci sos gàmmu ndar kon nag gàmmu gaa ngi noonu yàlla na ci yàlla yóbboog jàmm ñu ngi ci woo ñëpp bu kenn manqué ku mënul jéem a la man ku man sawaral te dem loolu daal lañ ci am lu ñuy wax alaji alson fa tabarfakàlla Pape Modou jërëjëf leer na matale nga yàlla na yàlla fay ñu la leen na nañ macha allah ñu jox nag suñu waajur suñu soppee xaaj Mamadou Moustapha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 ak mucc ak yërmande ak barke suñu borom yàlla na leen ko yàlla defal defal nu ko defal ko mboolem jullit fa tabaarakallahu cheikhul haj malik fall fii mu daaneel rek fi lu ñuy jële sof ci li nga xamee ne loolu la indi te muy historique gammu ndar xam ngeen ne 1954 bi ko sëriñ Babacar Sy sosey joxe ci ndigal fa tabaarakallahu mag ñi dañu ko daan waajal Euh, gàmmu ndar bu desee ñaari weer mag ñi dañu ko daan waajal valise lañ daan jënd di ko xottil ay yére ndax daf ci defoon benn ndénkaane daf ne comme mooy suma fatxu makk bëgg naa ku ma amal relation rek muy pas-pas muy cofeel nga demal ma te booy dem nga yóbbaale li nga gën a rafet la ci ay yére loolu tam mag ñi dañ ko ba mu des nag baxa ak rombal mbànd ñaari yooyu rek la la waxoon ne bokul ci couleur yi mu joxe waye lu ko way meuna wajale ci sañse rek nañ ko wajal parce que dafa bëggoon ñu xamé gan ya ak dëkk ya mu daan ko wajal nak waye bu jotaan ba bés bi ñew bu ñu ko téléphoné ne ko train bi mu ngi tollu lam-lam dara andang ak magam ñu bax ñoñu ko wër ñom serigne Moussa ñak ñom serigne Alioune Guèye tabarkal ak mag ñoñu bay maas serigne Mansour teel ka parasol bi mu mep yereem yoyu ak yarba nga xam ne bëtam dawul weesu dëggu euh, catu tànkam yooyu la di dox jëm gaar ba taxaw train spécial yëg si mu tàmbalee ko ca wagon bu njëkk ba di saafaxanteeg nit ñi di nuyu ñoom ba ca wagon bu mu jëba mu dellu siwaat ci bunta gaar bi taxaw tàllal loxam yu tedd yooyu ñaan ñëpp raay mun a yóbbu leen nu nu desoo leen yóbbu leen nu nu desoo leen fa tabaarakallaahu Eh, mag ñi nag di ko waajal di ko waajal di ko waajal fa tabaarakallaahu ba train amatul ni ko sëñ Maodo waxee léegi 1997 bi ñu defee eh, eh, inauguration Allée Serigne Babacar Sy ci dakaar yàlla dogal train amatul ci la sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin al Tijani al xalifa al am li taifati Tijani yàlla na yàlla yàgg yàggal cër bi ci boppam ñu bokk ci ñi ci ànd moom yëpp di ko déggal daal di wax ne jël leen oto yi ngeen def convoi comme ni ngeen defee ziar général ca la convoi oto yi tàmbali loolu nag ñu ciy woo bépp mbokku taalibe bépp mbokku pas-pas bépp mbokku jullit ñu xam ne santaane Serigne Babacar Sy te moom lu mu santaane def ko farata la fa tabaarak ci képp kuy njabootam nag su ko defee ñuy woo jullit yëpp pas mbokki pas-pas yëpp ñu di ko waajal waajale ko na mu ko doon waxee it yóbbaale pas-pas yi waaye nag waajal ko nag ci li ñuy sol. waajal koy tamit ci convoi bu jaar yoon bu dépare fii ci euh, siège u daayiratul kiram jaar Pikine fekk leen ci booru tali bi jël leen waa caaro yi ñu nga leen di fekk toujours ak waa géejewaay tëngéej su ko defee daañu fekk seen convoi pare ñu lonk leen jaare euh, jam ñaajo jël waa yeen ak tubaab jalaaw ñu féete foofu fekk ji waa Thiès ak waa Tiwaawan nu àndandoo defee ka noonu fa tabaarakallaahu taxawul ko ko ni mu ko yéenee woon yiw wañ cay amee ak defaruk àdduna ak àllaaxira gañ cay amee jar naa dem su ko defee kon ñun ñëpp ñu waajal ko waaye di woo ñëpp itam ñu àndandoo ci ak nun ni mu ko digale woon tey jii leen digal li gën a taxaw tey la gën a feddal ko wa ma zalika ala allahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fa tabaarakallah. Haaj Mamadou Moustapha jërëjëf.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 الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه صلاة تعرفنا بها إياه إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمنا نكو ni ko sama نون yi جلال rek مساج au niveau de la de la jeunesse ñun ñi nga xamanteni fekk nu fi sëñ babakar si waye yalla maynu ci garanti wa fil atfali minhum maasirun taarrafu bi nuuri fihi khabl halibihi ci bobu garanti lañu mëna dugg motax tay nu andando top ci sunu gannaaw bayyi pour wara jëfë ndigalam Euh, taalibe nag ndigal rek la am digganteem ak sëriñam sunu sëriñ daf nuy wax ni ndaw lu jubadi te am kilifa moo gën mag mu jub te amul kilifa te ñàkk kilifa li muy bon bon bon am kilifa gu matul kilifaa ko gën a bon yàlla nag may nanu fa tabaarakallaahu kim nu booleel di kilifa gu mat kilifa kooku nit ñi seede nañu ko ñu weex ñi nit ñu ñuul ñi seede nañu ko muy gàmmu ndar nag comme ni ko sunu papa yi waxe ci histoire yàlla may nu ci mbaaxam nu fekkewaat ko ren loolu dañ ciy wax baatu alhamdulilahi rabbil alamin ndax alhamdulilahi rabbil alamin moo régir authenticité tariqa bi tariqa boo xamante ni boy waxu di ci jëm la ngay jëk wax nauzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina sa ennemi intime daw te moy sa bakkanu bop nga ni auzu billahi min ash-shaytanir rajim shaytané daw nga ni bismillahir rahmanir rahim yàlla ñëw nga sokni ne rabbil alamin bo dematé ba jéxal sa werd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 ki amal affaire nag Serigne Babacar Sy moo nu ko jàngal nee na Cheikhana Ahmad Tidiane mi ngeen bokk ci tariqaam nee na yonent bee ko yaral boppam alhamdulilahi haza cheikhu rabbaahu ku ko wa yar xayrul wujudi moo yar kan xutbul wujudi ci ban yar ak tarbiyatu bil himmati wal xaal waaw tarbiyatu bil himmati wal xaal xaal bi mooy awraati tariqa bi himma bi mooy lii du lii sant nu di ko def léeg-léeg ñu ne bëccëgu ziar général jot na ñu ñëw ñu xool nu léeg-léeg ñu ne guddi gàmmo ndar jot na ñu ñëw ñu xool nu jox nu message kooku dafay dellu ci himma bi tarbiyatul himmati kon ndawi tariqa bi maa ngi leen di wax ci turu mouvement bi ci turu coordination yi ci turu daaira yi ci turu daairatul kiram turu daairatul ahmadiya ci ndigalu Serigne Abdoul Aziz ak ay rakam sunu papa Babacar Sy Mansour sunu papa Serigne Maodo Sy mboolem ndaw lu aju ci xadara bi noo ngi lay ñaan nga waaj dem ndar te mu ànd ak discipline nag ndax li nu sunu maam Cheikh déggoon kat woon uusikum bi ta addubin wa tafakkurin wa taamuqin fil baasi kal aslaafi kal aslaafi comme ni ko sunu maam yu baax yi doon defe héritage boobu ñu lege ko suñu baay yu baax yi ba tey ñu agsi ci sunu baay yi ñu toogal tudd héritage boobu ba tey jeunesse su tarixa bi wala approprié war a jëlaat héritage boobu war ko méngale ak jamono ndax fii sayri zamanika sir dem gàmmoo du sol basin bu rafet rek ñëw toog déedéet message ba nu xadra bi di jox nga xamante ni ñu ngi koy tànk ci almarkasil fuhumi wal maani te damay wax ni fahmu fuhumiyaat yi dañ koy approprier mais max naa maanaam yaat dañ koy dañu koy dañu koy dañu koy consommer dañ koy consommer pour mu mën a def ci yow jeexitalu ruux jeexitatu xel jeexitalu jikko te sunu sëriñ dafa wax ni juróom benni ànd rek moo am as soxbatu ma allah as ma al anbiya as ma al awliya as ma al asdiqa as ma al ahli ak as ma al juhala ñu laaj ko nag ni ko ku bëgg a ànd ak wali nooy def mu ne ñaar rek may ko xorma bi xormatin wasala man qad wasala wa bi tarkiha fasal la man xat fasal mu ni bi ko ñaareel mooy lépp loo dégg ni ca moom la jëm sonn ca na ca ñëpp di sonne tey nag ndar la woote kon nun ñëpp nañu ànd sonn ca na ca ñëpp di sonne yàlla nañ ci yàlla defal tawféex ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ñu àq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Oustaz Ahmed Diakhaté euh, macha allah ci conclusion bi euh, matale na yàlla nu yàlla fayal ñu la Euh, di encore une fois Pape mode, introduction luminaire bi développement bi nga xamné suñu Moustapha def de manière avec avec brio ak tamit conclusion bi nga vraiment une conclusion luminaire Ahmed Diakhaté def ko di sante Yalla kon bokk mbokk yi. li la la télévision TV Babacar muy le samedi 15 avril 2017 Tchandar, Saint-Louis du Sénégal Gamou Seigne Babacar ñu salam. ci woo ñëpp voir le TV di biddéew bi leen di gindi ci at ak télévision la lumière de la